asalaamaaleykum mbokk mi internet people tey ñoo ñu dellu seen waxtaan di dalal kilifa boobu xam-xam muy sëñ Fallou Kéemaan sëñ Fallou ñun waa people ñoo la nuyu di la jox sa wàccuwaay di la bàyyi nga nuyoo mbokk internet yi. bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala sayidina wa xabibina wa safixina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asraful xalq wa sayidil mursalin walaanatu ala alzaalimina walfasiqin ila yawmi ddin bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen nuyu yéen tamit di leen sant bu baax ci déplacement yi ngeen def ak coono yi tamit di leen ci masaw di nuyu mboolem koo xamante ne yaa ngi ñuy teewlu moo xam mu nekk ci biir réew mi wala muy ci biti réew mi foo mën a nekk ci àdduna rek moo xam nga ñuy ngay sunub soppe wala ngay sunub noonu wala loo fa la doon rek comme niñ koy man di waxee ñu ngi nuyu wa a yëpp Euh, sëñ Fallou Kémane ku am taxaw seetlu euh, mag yu bëri dañuy ne nit lépp lu muy dugg war na ko càmbar yow loo ñu mën a xamal si wàllum seet. ba bari ay façon mooy waral ngay dégg yi saa nit naan la ci lan ngay seet ndax ci ndox ngay seet ndax ci pettaaw ngay seet ndax ci seet yu ñuy wax wàllu tomb yi mooy am na ci yoo xamante ne ramli lañ koy wax am ñuy seet ba tey ci wàllu loxo seet dafa bari ay façon waaye gum ci mën a doon lu ëpp ci ñi nga xamante ni ñu ngi jëflanteeg man buñ ma woowee lu jëm ci wàllu seet moo xam ñu ñëw ba Joal fekk ma fa wala fuñ ma mën a fekk moo xam muy Dakar buñ may wax ci wàllu seet ñaareel lu ci ëpp moom ci quinze minutes laa leen di nekkandikuloo boo defee ñu seetal leen seeni mbir te lépp luñ leen ci wax moom alhamdulilahi rabbil alamin neewaa nañu teggi ko nit ki nga war seetal c'est obligé nga war a jàkkaarloo déedéet ndax damay seetal nit ci téléphone ndax xam nga bii moom du sama euh, génn bu njëkk ci wàllu internet yeeg yu mel noonu kon ñi may jëflanteel ci wàllu bitim réew bari na te ñoom waxtu wu nekk ñu ngi leen di seetal ba tey kon dañuy wax ne mën nañoo seet ci téléphone waaye lu ci ëpp solo mooy nit ki li muy seetee même bu dee dërëm sax ak noo ko mën a jaaree ba jox ko ko rek fexeel ba jox ko ko moo xam nga yónnee ko ko ci ay téléphone wala nga yëkkati ko teg ko ci loxoom ak nu mu mën a doon même bu dee dërëm sax yëkkati ko teg ko ci loxoom incha allah waaye foo mën a nekk ci àdduna rek seet moomu amul jàkkaarloo ak lii parce que looy def la tur wi rek moo ci am solo ak turu waajuram boo kasee ba am rek li ci des yëpp daanaka tabaarakallah dafa am tamit lu am solo muy tom boo xam ne dama bëgg ñu dugg mooy wàllum faj. Mhm. ndaxte bu ñu waxee faj surtout ma néew kàttan. Mhm. ndaxte bu njëkk mag yi la doon dal mais léegi tamit li ñuy seetlu day dal jeune yu bëri. Mhm. néew kàttan est-ce neex na faj. néew kàttan neex na faj neexu la faj li tax neexu faj mooy. nit lii nga xamante ne moom nga war a moytu toujours mooy bàyyi ba feebar soog a faju lii gën ci nit mu war koo def mooy fagaru waaye mm, warul di xaar ba feebar bi daal ko mu soog di faju waaye boo xoolee néew kàttan ñu ëpp ci ñim dal li tax mu dal leen ñoo ko teg seen bopp di fowee seen bopp di sëyee jigéen ju leen lewul te xeet yu ne lu leen yàlla suñ borom tere rek ñu ngi koy def te boo xoolee en général yàlla du ñu tere loo xamante ni Euh, ngir boppam moo tax lum ñu tere rek pour suñu wér-gu-yaram moo tax wala suñu bopp boo xoolee ba ca biir parce que boo xoolee julli gi mu ñu digal boo xoolee en général ñi nga xamante ne ñoo dàq saytu wàllum tàggat yaram ci àdduna boo xoolee dañ ne moom ñii ñu ko tëralee gisuñu sport bu ko gën kon day mel ne suñu borom euh, li nga xamante ne moom la ñuy digal rek dafa gën ci ñun kon bu ñuy tere ñuy fawee suñu bopp ak di fawee suñu sakara ak jigéen juñ gis sëyal xëy na lii rek la ñuy moytuloo waaye nag kum daal incha allah ñu ngi leen koy moytaloog ñun bu soobee yàlla dinañ ko faj ba mu wér péng ba dootoo ko yëg am nañ ci benn takku sunguf bu ndaw bu ñu ci joxe boo xam ne képp ku ko naan moom daanaka yaay raw naaru góor tabarakallah loolu suñ borom def na ko te alhamdulilahi rabbil alamin niñ ci ciy jëflanteel ñu ngi ciy gis résultat ba tey it néew kàttan ak awra boo xamante ni dafa ndaw bokkuñ am na ñoo xamante ni seen awra day ndaw ñu bëgg koo yokkulu maanaam ba mu rëy ngir ñu mën a satisfaire seen euh, adversaire laa ko mën a tuddee kon loolu day laaj tamit beneen produit bi boo xamante ni man maa koy liggéey ci sama bopp ci sama loxo waaye képp ku ko jëfandikoo doo toog une semaine te woo ma sant bu baax a baax loolu la yàlla suñu boroom dogal ci wàllu googu incha allah te it awra bi dina yokk dana rëy te dana gudd alhamdulilah rabbil alamin dafa am beneen ponk tam bu ma bëgg ñu dugg muy wàllum ndoxum siti mhm. ah, ñi ñi koy fagal am dinañu dugg fépp génn fépp dañuy dem hôpital sax duñu si am solution mhm. ndoxum siti yow koy faj waaw dama koy faj waaye xam nga dafa am xeeti feebar yoo xamante ne eh, boo koy faj lii gën mooy nga dimbali ñii nga xamante ne moom lay daal parce que en général dina dal ñoo xamante ni ñu eh, ay kilifa lañ waaye lu ci ëpp ci ñi muy dal daanaka ay néew bi doole moom ñoom lay gën a fës ngay gis muy xëp seen yaram yi ak di ko def ay yu kenn xamul ay picc wala mu di ko def ay li ñuy wax lapp loolu yaakaar naa donga yi ñoo koy gën a xam nga xamante ni day génn nii mu mel ne xeeti suukar en plus tamit ndoxu siti ak suukar su bari ñu bari dañ koy jaawale parce que suukar su bari day mel na luy futt sa yaram bi en général ñu baree bari dañ koy jaawale ak ndoxum siti képp koo xamante ne yaa ngi koy sentir ci sa yaram nga gis ay picc yu génn wala yoo xamante ne yu sew sewaan la te nga njort ne suukar la sa ginnaaw fi ngay demee toilette di xasan da ngay wut euh, reeni senjeng nga xooj ko di ko naan boo jëlee benn takk buñ ciy jaay rek boo demee jaaykatu garab yëpp dinañ ko am boo jëlee takk bi rek da nga koy def ci benn biteelu Evian bi jar 400 boo ko ci defee incha allah nga di ko naan kaas suba kaas midi kaas ngoon yow ci sa bopp yaay santaan sa bopp joxe naa ko àddee Sëñ Tuubaa incha allah bu siti nag moom garab gi ñu ciy joxe képp ku ko jël barakallah dafa am loo xamee foog nañ ko ci wéeru te euh, xaw ñu jaaxal tuuti. Hmm. muy wàllum euh, moitié à distance loolu lu muy demee noonu. Hmm. loolu boo gën a ndaw ci li nga xamante ne moom la ñu suñu borom jagleel. parce que ku ñëw ba Joal xam ni ñuy liggéeye di nga xam ne alhamdulilahi rabbil alamin ñii ñuy jëflanteel tamit alhamdulilahi rabbil alamin ñu ci bari daanaka xam nga nag wax dëgg yàlla bu dul dara métier mi suñ borom moo ñu ko nattoo nga xamante ni ci lañ nekk daanaka dañoo judd rek nekk ci wala boog bañ xàmmee lañ ci nekk te it yaakaar naa ne li ci dugal ñu bari dugaluñu ci ndax xëy na ku xamul sëñ fàllu rek waaye ku ñu xam-xam ne wutum xaalis dugaluñu ci ndax wutum xaalis daanaka yenn yu baree bari ñi nga xamante ni mu ñoom la xaalis di gën a tiital mooy ñi nga xam ne xamuñu ko waaye wax dëgg yàlla ñun dañ cee judd teg ñi ñu xam nañ ne dañ cee judd waaye lii ba ma juddoo daanaka dama ko wëndaale ndax ba ma xàmmee lañ ma tàmbali di rang di ma ñaanloo ba fii may wax ak yow waaye nag alhamdulilah rabbil alamin kon buñ demee ba war a mën a nit ki toog fenn ma toog fii ma toog moccal ko mu wér ci saasi ah loolu wax dëgg yàlla dañuy jàpp ne c'est normal ñi ñu xam du du garaaw ci ñoom waaye ñi ñu xamul xay ne mën naa garaaw ci ñoom te bu fekkoon ne loo xamante ni boo koy def da nga ciy laaj xaalis ñu ne waaw waaye képp koo xamante ni sa bopp day metti ak foo mën a nekk ci àdduna boo ma woowee man sëñ Fallou ma mocc ko ba mu sedd guy te soxlawu ma ci sa fukki dërëm ak koo mën a doon boo yoroon ni milliard jërëjëf na jàmm bëri dinaa ko mocc te yàlla rek tax incha allah boo ma jotee téléphone. boo ñëwee ba toog ci man tamit doo jug mukk indi fi bopp buy metti ba pare wëlbatiku mukk wan ma ginnaaw yóbbaale ko munta nekk loolu moom yàlla moo ñu ci defal tawfeex jooju ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax baax a ndax duñ ne secret bi ci kii la jóge wala ci diw wala ci masamba kon lu ñu yàlla jagleel la alhamdulilah kon nag dañ koy baaxee jullit ñi tabarakallah euh, léegi ñu dugg si wàllum ñaan mhm. man dafa am ñaar yoo xam ne dama jiital trop mhm. muy ubbeeku ak kaaraange ñaar yooyu dañoo war a ànd ubbeeku ak kaaraange saa boo gisee ñuy ànd ubbeeku gaay mujj kaaraange ndax nit dinay wut lu ko aar di wut ko aar di wàllu wërsëgam day tëju complètement parce que kaaraange gu day tëj parce que dafa lay aar te àdduna bi ñu nekk lépp loo xamante ni ñu ngi koy dund rek dafa ànd ak ay risque yéeg gi ñuy yéeg ci kaw escalier yi ay risque la te pourtant mën nañoo yéeg ci kaw gi fekk fa alal ju baree bari ju ñu war a jëfandikoo kon kaaraange nit ki mën na koy wut waaye na koy soril parce que bu fekkee ne loolu dalay aar tam xam ne fii ngay yéeg nii di jël milliards yi wala million yi wóor du fa nangu nga yéeg fa parce que daf lay aar pour bañ nga loru moo tax kaaraange nit ki boo koy wut boo ko wutee benn yoon nanga wut fukki ubbeekaay doo ko wutaat kaaraange parce que kaaraange ak ubbeekaay kaaraange daf koo ëpp doole te it kaaraange li muy lor moo ëpp li muy jariñ ndax moom tabaarakallaahu day bëgg a aar la sa lépp comme ni nga xamante ne noonu lañ koy kiyee tabaarakallaahu loo mun a baaxee suñu mbokku mboolu mboolu yi nga xam dañuy jàkkaarloo ay difficulté mooy wàllum am kayit wàllum am kayit moom alhamdulilah ñi nga xamante ni ñu ngi ci tàmbali woon di jëflanteek ñun loola daara ja la woon ba nii may waxee ak ñi nga xamante ni ñu ngi ciy jëflanteek ñoom xëy na moo waral suñu génn yu bari yi ñuy génn di dem ci biti réew ak yu mel noonu ndax ñu ëpp jëflanteek gi ñu jëflanteek ñoom seen xol sedd seeni kayit yooyu génn moo waral saa su ñu am yéene di jàkkaarloog ñun ñuy ñëw ci seeni kër di fa dal tabaarakallaahu xëy na at yi bëreegul sax waaye fiñ teg suñ tànk bari na teyit loolu du dara xëy na suñ borom rek moo ko def mu doon lu war a am rek am na ala kulli waaye képp koo xamante ni wàllu kayit ngay yittewoo nga woo ma man sañ fàllu bu fekkee la sañ borom defoon ci man rocciwu ko du mat mukk weer woo xamante ni doo ma woo sant ma bu weer a sant suñ borom tabaraka wa taala loolu ala kulli ñaan nag goo xamante ni dama ciy laaj fukki dërëm même bu dee fukki dërëm sax dinaa la wax jamono ba nga xam ne moom la ko suñ borom na ma amal incha allah waaw bi te ñëwuñu si benn point am na loo ñu waxoon lu yéeme si combat Modou Lo Ama Mhm. yow yaa ngi gardé position boobu léegi. Eh, ndeysaan bi ma ko waxee rek bëri woon na ay coow tuuti waaye man mii sëñ Fallou ma ba ma koy wax yàlla rek a taxoon ma di ko wax. kon nag bu fekkee ne loola yàlla rek a tax du ma ci reculer benn yoon ay nit woo nañ ma ci jooy lu ne def nañ ko ngir nga xamante ni si ne dañ may encourager parce que dafa bari woon ay kii nit ñi di menacer dof yi nga xamante ni dañ ne dañoo bëgg Modou Lo te dara du ci dëgg. ndax ay dof rek laa ko mën a jàppee ndax koo xamante ni day dimbali nit te yàlla tax maanaam li muy def yàlla rek a tax mu di ko def yow nga ñëw ne da nga koy saboté ak di saaga ak yu kenn xamul yu ñàkk fayda yooyu waaye Modou man sëñ Fallou bu ma doon moom ak boo teewloo émission bi man li ma lay digal même bu fekkee ne dañ leen a bàyyi ngeen bëre bu ma doon yow 2021 bii ñu nekk duma ci bëre ndax bii mooy ñaari yoon ma ne la boo demee ak sa wetu càmmoñ gii di metti doo fa jëlee ndam te bii mooy ñaari yoon ma gisaat tamit nga dellu fa te jëlee waatoo fa ndam wallahi wal quraanil azimi billahi lazi laa ilaaha gayruhu bu ma doon yow 2021 bii duma ci bëre loolu nag maa la ko baaxee ta yàlla rek tax te man sopp gu ma la sopp moo tax ndax man wax dëgg yàlla jot gi mayu ma may nekk di lijjanti numéro jàmm wala yooyu waaye yii occasion rek laa mën am pour baaxee leen ci li ma leen ci mën a baaxee parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci internet bi moom ñëpp a ngi ci léegi waaye daal loolu laa koy digal mooy 2021 bi moom bu ma sañoon du ci bëre ndax sama fan sama soppe la te dama ko bëgg te yàlla tax te bu ma sañoon saa su ne ndam lay am tabaarakallah. Hmm. Euh, sëñ Fallou man ñun waa 221 People ñoo lay jaayee bu baax di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokk internet yi. waaw sant ñëpp gërëm ñëpp sant leen bu baax a baax a baax te di leen ñaanal suñu borom gën leen a yokk bu baax. te di sant mboolem koo xamante ni teewlu nañu te képp koo xamante ni am nga yaakaar ba yëkkati say jéego dox ko ci ñun yàlla bu suñu borom tas yaakaar jooju barki balaa ji fàll wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu